waaw laaj bi de euh, law anzalna anzal qur'ana euh, alquran lépp màgg na waaye am na ci aaya yoo xam ne yonent bi sallallahu wax na ci dara bokk na ci law anzalna gi law anzalna ba saar wi jeex euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam a ngi wax ne bi muy wàcc jibril daf ko wax na ko jëlal sa loxoom ndeyjoor teg ko ci sa bopp bi mu jël loxoom teg ko ci boppam mu jàng law anzalna hazal qur'ana ba saar wi jeex euh, mu nekk aaya boo xam ne euh, bu sa bopp bi di metti loolu moom dama ko boole ci laaj bi rek euh, insha allah bu sa bopp bi di métti nga jël sa loxoom ndeyjoor teg ko ci sa digg bopp bi jàng ko baax na waaw baax na mën naa saafara bopp buy metti insha allah mëngoog mëngoog aaya bi li muy wax mooy borom bi dafay wane e, nit ak jinne dëgër bopp gi ñu dëgër bopp muy wane ci aaya bi ne xeer doj doj yi gën a dëgër su fekkoon ne alquran dafa wàcc ñoom danañ nangu waaye doomu aadamaa ngi nii nga xam ne moom mu ngi nooy nemm yàpp ak deret dégg nga e, waaye boo wàccee ci moom alquran mu motax toujours ñu leen di tuddee saxalay ni xalé ni moy ñaar ñu dëgër bop nit ak ginné wa ñaar ñu dijj bop wa ñaar ñu mëna bañ alcorane di wax dëgg yalla neex na neex go xamné ne ku yalla def nga nité do ko bañ dang ko nang dang ko bugg da nga bugg ñi ko bugg nango borom bi ne law ansal buñ buñ hon ñun yalla hansal quraana alquraan jii xalaa jabalin ci kaw doj alquraan jii buñ ko wàccee woon ci kaw doj la raaytahu xaasixan da nga da nga gis doj wi nangu doj wi dana nangu dana gëm dana toroxlu mutasaddian dana mokk doj wi dana daanu waaye mokk la ci namb waaye nangu la ci namb min xasiyatillah euh, ngir ragal borom borom bi ne kon ni nit ak jinne yéen di dëgër ngeen bopp yéen xeer yi lu ñoo dëgër dëgër mountain yi montagne yi mountain yi ngeen ay gis nii su ci suñ ci wàccee woon alquran sax ñoom dan alquran doj yi danañ tasaaroo danañ mokk danañ nangu danañ nangul alquran ngir ragal yàlla ana nit moom yow nag yow doomu aadama lu tax ñu wàcce alquran ci yow jox ko nit ni yow koo xam ne day lekk di naan di dem marché mooy jël la alquran ji lu tax yow doo ko nangu lu tax doo ko topp lu tax doo ragal yàlla loolu mooy maanaa aaya bi waaw waaw yàlla nag ne wa tilka al amsaalu loolu nag damay léeb rek du ne dama namm ñi jël alquran di wàcce ko ci xeer alquran ji di wàcc ci xeer ci ko am kan lay wàcc waaye nag wa tilka al amsaalu man damay léeb rek waaw loolu léeb la. waaw nadribuha linnaasi dama koy léebal nit ñi laaloom yetta yetta fakk pour ñi mën a euh, xalaat pour ñi jëfandikoo seen maayen ñi xalaat ñi xalaat ci seen xol ñi xam ne alquran ji min indillah mu ngi jógee ci yàlla te ni ko waxee bu jógee woon ci kudut yàlla dana am ay outil yu bëri yu ci nekk donte outil yu ndaw ndawaan am na ci waaye loola yàlla la soob muy falaat muy fal aaya yëkkati ko allah ma folli aaya mooy li ñu tuddee naasix ak mansuux laakin maanaa aaya bi daal loolu rek la mooy alquran jii su wàccoon ci kaw xeeri sax maawuntini étage yu guddi yi sax bu ci alquran wàccoon ni ngir ragal yàlla wax ana nit nag moom yàlla nag du mu waxee loolu mu tekki ne waaye nag duwut ne alquran dañ koy wàccee ci kaw xeeri waaw wa tilkal amsaalu damay léeb rek di misaal la rek xam nga buñ ne bukki ak lëg bañ àndee ko ne xam ne ne bukki ak lëg du ñu ànd dañ la bëgg a jàngal muus ak dof rek ñi jël lëg mu muus ñi jël bukki mu dof ñu ne bukki lëg bañ àndee nangam nangam foo dégg léegi bukki rek ñu ngi lay jàngal muus ak dof waaye alquran nag bi mu waxee loolu na ne wa tilkal amsal damay lépp man yàlla de waaw waaw nadribu linnaasi nit ñi laa koy léebal la'allahum yattafakkun parce que nit moom lañ jox xel mu nekk xalifa yàlla waaye waaye xam na ne bu ñu wax alquran ñu wàccee ci waaye xam na ne moom dëgg-dëgg euh, alquran ji wàcce wuñ ko ci xeer ci nit lañ koy wàcce waaye euh, maanaa bi ci ahlu suufa amit mën naa gën a xóot loolu mooy alquran ji xol bu ko dégg xol bi mën naa nekk doj waaw xol mën naa taxaw taxawaayu doj ndax mu ngay wax ci suratul mbaqara ay nit ñu muy tooñ maanaam di dal ci seen kaw ay xéeféer yu muy wax seen melokaan di wax ne seen xol yi ñoo gën a wow doj ndax doj moom léeg-léeg mu génn ndoxu nit ñi naan ko wala mu daanu ngir ragal yàlla waaye xol yoo xam ne buñ déggee alquran duñ du yëngatu xeera kon bu ne xeer ba léegi mën ngaa wax ne xolab doomu bi tey bu fekkoon ne alquran wàcc na ci muy xol boo xam ne xol bu dégg alquran la dëgg-dëgg dana tasaaroo moom doomu aadama boobu ba jël léppam delloo ko ci yàlla waaw maanaam daal ku dégg alquran dëgg-dëgg rek dellu ci yàlla waaye maanaa yi bëri nañ waaye bi ma la njëkk a wax daal mu fasiroo ne yaatu nañ loolu niñ koy firee ñu ngi eh, dem ci yeneen laaj yi parce que ron asalaamaaleykum